asalaamaaleykum yéen ñi bàyyi xel seen télévision Rafah TV ñu dikkaat ak yéen ci naafila gi ñu baaxoo ànd ak yéen naafila gi ñu ngi ko toxale ci téere téeréeb Serigne Souhaïbou Mbacké Xaadim Rasoul guddik juróomeel ñu war cee julli ñeenti rakka rakka bu ne fatiha benn yoon anam nasara ñett yoon xul walaawu axat ñetti yoon ñu baamtul leen ko ñeenti bu ne benn yoon anam nasara ñetti yoon xul a axad ñetti yoon ñu di leen jox dig daje bu subaak jàmm incha allah.